simile mbirum Barthélemy Diaz yëngooti na le point du journée bàyyi mu seba buro waaw ak ñaar ci ay nervi ñoog Barthélemy Diaz kon bokk nañu kaso ba libération yéen kay ne buro ak Sémou Diouf day yóbbu nañ leen kaso mujj lañ leen a kon bàyyi waaw seen kër kon la ñu fanaan am na ci ñoo xam ne ay Samba Sourabali lañ di ay nervi Bokar Sy Cheikh Diop Babacar Faye ñanga ndungu siin laas ne buro moom mais nga xam ne ña ngi ko jàppee kon ca asalem moom nag jàpp na ne dogal la boo xam ne kon ca ay kilifa la joge kon nag lépp loo xam ne kon justice wax na ko moom buro dana wàccoo ak moom ñu yóbbu ko rëbës juróom-ñaari waxtu ca ngoon juróom-ñeenti waxtu ca ngoon ñaari waxtu kon la fa def ñu yóbbu ko ca bureau doyen des juges moom bromo mais ak semu ñaaxaar juuf waaw mujj lañ leen a bàyyi ñu ñibbi kon seenu kër yéene kaay gi ne ana ñu doon wax ne képp koo xam ne kon far nga ci Abdoulaye Wade mën ngaa def lu ne wéngi wéngaaral te dara kon du la ca fekk wàllum impunité laas ne yow ginnaaw bromo mais gendarme yi kon teg nañu loxo bookar si ca géejawaay la ñu ko jàppe semu ñaaxaar juuf nekkoon garde corps Farba Senghor fii ci ndakaaru benn quatrième étage ci rue Alfred Gou la ñu ko jàppee Cheikh Diop maçon ca Cambérène kon la ñu ko jàppee am na keneen koo xam ne kon nee na mes ni men tañ te ñu ngi laam-laamee ni Boubacar Sy Doucouré la cay Adja Diaw Gaye cay Jean Paul Diaz laas ne teg loxo gi nga xam ne kon teg nañ ko loxo bro mile ci cong goo xam ne kon am na ca mairie Mermoz Gueye ba am ca koo xam ne ñàkk na ca bakkanam di Ndiaga Diouf inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndeysaan teg loxo gi nga xam ne kon def nañu ko bro loolee taxul kon Jean Paul Diaz mii kontaan ca ba léegi ni la de déedéet parce que bàyyi Barthélemy Diaz nee na dañoo war a kon teg loxo kii di Abdoulaye Faye mii administrateur parti démocratique sénégalais waaw parce que oto ya nga xam ne kon ca la Samba Sourabali ya yéegoon ña nga jugee woon kon ca permanence su PDS te ba ñu paree seenu giraawaali goo gee fa la ñu kon dellu libération yéen kay ne am na ci appunkal moo xam ni day laa ilaha illallah ah mani ci daanu la jëm de danañu ko jàpp de du ñu fi tudd turam nag liggéey bi nga xam ne kon takk der yi ñu ngi koy def di daal di kon yàq li yàqu kay waaw mooy la ca Abdoulaye Wade dugg tribune yéen kay ne loxo bi nga xam ne kon Abdoulaye Wade dugal na ko ci coowal Barthélemy Dias goo gee waaw tuutil toroxol ba ni dott suñu justice bi la dañ leen kon humilier moo tax it Omar Pène fépp na ci réew mi quotidien Korbana Ndiaye ne kar kanam wala yére bi nga xam ne kon moom la ñu sonal suñu Sénégal gii ci guddiñ tol nii sagaluñu te rafetul waaw waaw ñi ngi fii rey ay doomu aadama di fi agressé ay doomu aadama di fi noot di terroriser ay doomu aadama ay nit ñoo xam ne ay honnête citoyen la ñu ay Samba Sourabali kon ñu leen di recruter di ay nervi ñuy caxat-caxatee di saccager di fitnaal nit ñi dégg nga Omar Pène ne lan la police bi lee di jariñ lan la gendarmerie bi lee di jariñ moom njiital super jamono yamu jax ndaxte nee na askan wi ci boppam kon waruñu koo sacrifier sànk leen waaw waaye nag nañu jàpp ne la woon woon ni na de la amoon wóor na yàlla dootul amati désormais rien ne sera plus comme avant au Sénégal oh Sénégal goo gee ñi ngi waajal élection yi tribune yéene kay ne moo tax Ousmane Tanor Dieng kon commencé naa dëkku nag ki nga xam ne mooy Abdoulaye Wade de waaw waaw nee naa Abdoulaye Wade bu dee woo nga def attention bu baax a baax parce que élection yii waaw moom la ñuy gën di kon bàyyi xel ci àdduna wërngal képp gi Tanor a nga ko wax ba muy dalal kii di Ségolène Royal bu France njiital parti socialiste France goo gee di François Hollande waaw nee na fitna yi di wàllum violence tiitalaate intimidation ak wàllum sàcc ak yooyu jee amuñu place kon fii ci Sénégal élection yàlla élection yi daa war a leer nañ ba mel ni midi fii ci Sénégal gi daa war a leer kay lay bëggul lëndëm nay leer saay ci samedi ji moom lay wàdd ma nga jëm kon ca diwaanu Fuuta gële fa seeni faa inauguré ci kon forage ci Namaxel danañ ca toftal kon ab meeting bu jugee ca Namarel googee moom Abdoulaye Wade kon dana dem ca Matam waaw ngir ay liggéey rek ay travaux pont ba nga xam ni kon moo dox ca diggante Ourossogui ak capitale régionale ba lay Wade ngi politique de tribune yéene kay ne niki kon démb ca palais ba waaw addunaa fa daje de maa la wax li le ambassadeur yi ña nga woon ca palais ba kilifa diine yi ña nga woon ca palais ba diplomate yi ña nga woon ca palais ba croix rouge ma nga woon ca palais ba généraux yu bees yi ña nga woon ca palais ba généraux yu yàgg ya ña nga woon ca palais ba monseigneur Théodore Adrien Sarr ma nga woon ca palais ba xew mu rëy cérémonie de vala at mu bees mi waaw waaw tribune yéene kay ne magistrat yi daal di cay profito bu baax a baax jaajëfal Abdoulaye Wade gërëm ko sant ko ci cadeau yi nga xam ni kon jox na leen ko ndax magistrat yoo jee bëgg ñoo def kon fëkk jëf tribune yéene kay ne waaye politique ba fesoon na fa ndaxte Abdoulaye Wade waaw tàccu nañ ko gërëm nañ ko fa tatagal nañ ko fa ka doore mbir mi nag di Mohamed Samb jeune waddiste ba moo dikk daal fekk Abdoulaye Wade fa mu taxaw waaw Mohamed Samb daal di buub loxo ba yëkkati ko ca kaw wan ko ni kon Wade jël nga ndam la Abdoulaye Wade bég bay bëgg a dee waaw waaw jaajëfal tam Mohamed Samb moomee Samb it kontaan ki kontaanul kay mooy Karim Wade mi le Le Quotidien yéen kay ne moom Karim Wade moomee ni ki démb daal nañu ko gàttandoo ci diwaanu Géejawaay gee maar d'Italie ay yuuxoo ay morceau yu xonq CM Canada la élèves yo commencé kon ñaxtu ya yuuxoo ca kaw ne amuñu ay professeur yu leen jàngal dégg nga Karim Wade yaakaar ne bu demee ca Gunaas mu tane foofoo yées Mamadou Dia dëkk ca Medina Gunaas yéen kay gi ne kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bii ma ne sérieux wuñu laa la wax waaw dañoo bàyyi ba Karim Wade di ñëw ñu indi fi ay ndaraan ak yu kenn xamul ngir jëlee fi ndox mi te ndox mi nga xam ne moo nekk ci Medina Gunaas kii daanaka ëpp na fukki at maa la wax li le jigéen ñaa gën a meer ñëpp ah man ñenn ñi dañoo yor ay xeer taxaw sàkku sax ci Karim Wade mi le mu génn ca gox ba ci nu mu gën a gaawee yéen kaay ma jambal jàngi ne mani yuuxoo yaak morso yu xonq yaak jàppal bàyyil ga tax na ba doomu Abdoulaye Wade gile fa nga xam ne bëggoon na faa demaat di troisième étape ba waaw dañu koo mujj fomm de fana xanaa ca marché bu bees ak lii sa limaamu laay le pays au quotidien ne déet ginnaaw Medina Gounass kay Karim Wade fu mu jaar gatandu nañ ko comme nañuy gatandoo buur Touba it wax nañu le populaire ne xam ngeen ne sëñ Bass Abdou Khadre Mbacké waaw bu demee kon ma waxee dënn waaw waaw dëggay génn de Mbacké Balla Aïssa jagleelee ko jege ñaale wax waxeet Wade mi le ki yor kàddug murit ya ne Touba Khadimu Rasul moo ko sañc de kenn mën ta saboté Touba gi wala lu ko jëmale ca kanam mukk képp koo xam ne yaa ngi koy jéem wallaahi di nga ko gis sëriñ bi ne Touba naam amoon na ay jafe-jafe ci wàllum ndox jamono yu tubaab bi kon téyee ca njaareem Khadimu Rasul sëriñ Abdoulaat ci boppam waxoon na ne askan wi jur gi dem nañ bay bokk ndox sëriñ Bass Abdou Khadre ne waaye ñaanu sëriñ Touba wàcc na kon ci bërëb bu tedd bii di Touba Mbacké ndaxte fi mu nekk ni daanaka lu ëpp fukk ak juróom-ñeent ci ay forage ñi ngi ci bërëb bu tedd bi le ki yor kàddug murit yee yemu ca nee na ñi nga xam ne nag ñoo ñuy tuumaal nañu dañu yàq ndox ndax duñu jënd ndox moo tax xaw ma duñu dimbali xaw ma la nag lan nañ def attention parce que ñooñee nga xam ne ñoo koy wax nañu xam ne ñàkk jëndum ndox fii ci Touba du tey du nguuru Abdoulaye Wade gi du Abdou Diouf du Léopold Senghor Serigne Saliou Mbacké ci boppam taxawaloon na fi kon ab projet wu ndox loolee ñëpp teg nañ ci kon seenu bët sëñ Bass Abdou Khadre ci populaire ne ñi nga xam ne ñooy jéem a nag bloqué projet yi ñu sanc fii ci diwaanu Touba gii dañoo contre Touba rek waaye léegi ñooñee xam nañ leen te feeñal nañ leen te nit ñooñee ñoo doon wër di xam leen ne Touba dañoo bëgg nguur wallahi juum nañu Mbacké Balla Issa surtout Serigne Touba bi ne Touba bu bëggoon nguur Abdoulaye Wade du ci jot ñi fi Abdoulaye Wade wutu du fi jot barke Rasuul laay ndax Serigne Touba amul lu ko tubaab bi digul mu lànk ne bëggul ci siraatal mustaqim kese lay yëngu allahu akbar tribune yéene kaay ne soo leen gisee journal bi génnul démb waaw wàllum jafe-jafe technique la woon dem naa ca làmb ja Leewtoo yéene kaay ne zos Papa Sow seen ñaareelu face à face jàkkaarloo bi ci biir rajo Zik FM gii lay amee yéene kaay gi ne ay waay Balla Diouf Tidiane Faye suba ci dimanche ji la de ay Moussa Gningue mi le bu faas ki suñu làmb nee na day yóbbu Baye Mandione mi ci kanamu procureur de la République altine la yéene kaay gi ne ay waay duubalees baayu Balla Gaye dalal na xel ya de laa ilaha illallah duubalees ne ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril bisu combat ba ak Yékini waaw sama doom ji Balla Gaye kenn du ko xàmme barke Rasulaay ah duubalees ne Balla Gaye de ngembam li ngembam li waaw amul benn mbër bu ko am kon ci Sénégal gii ci arène bi laa ilaha illallah ah maa la wax li man de naka jekk sax damaa mës di moytu Balla Gaye dama ko mës di moytu samay mbokk ñaax nañ ma bataay bàyyi lamb ji ngay fooye bàyyi lamb ji ngay fooye ma bëgg ay million rek bëgg a tekki rek ba ñàkk ca say bëñ wala dee ca lamb jàngoog yàngoog demal